الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخوة المصاهدون لتلفزتكم تبعترا شانل نحييكم بتحية الإسلام ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما زلتم تتابعوننا في برنامجكم تفسير القرآن الكريم في هذه السهر المبارك يعده ويقدمه لكم أخوكم علي جي بوكي تلسبكتاتي ريني سيتان تيسن تي في 3 شانل نيجي دي نيو فين لن دار نيو تي وقت وي تيسن تفسير القرآن الكريم بين لن دي دفل تي ويرو مك دي ويرو كور دي جاجفل نيب نيو كلفة ديني كلفة عادي waaye di ziyaara mbokk yëpp di ñaanal ñëpp jàmm yal yàlla def jàmm ci réew mi xam ngeen ne yéen ñu doon topp ci suratul fatiha tur yi nga xam ne borom bi subxanahu wa taala tuddee na ko déggoon ngeen démb ñu wax leen fukki tur ak ñaar yoo xam ne moom la fatiha tudd tey nag ginnaaw bi ñu leen firilee basmala te mooy bismillahi rahmaani rahim wax leen fatiha tur yi nga xam ne moom la am. tey nag dañuy ñëw ci daj dëpp gi nag te mooy firil leen saar bi ñu di leen ñaan fi ngeen toog ci seen salon yi wala fi ngeen nekk ci seen bureau yi wala fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi ngeen déglu fatiha ñu tekki ko lan la borom bi subhanahu wa di wax ak ñun baada auzu billahi min ashaytaani rajim alhamdulillahi rabbil alamin li muy tekki mooy borom bi mu kawe mi te moy yalla mu ñi xamal nan lañ ko wara santé sante alamana albari, kayfa nahmaduhu wa kayfa nuqaddisuhu wa kayfa nusni alayhi li annahu huwa ahluhu yalla moo ñu moo nuñ koy sante mënoon nañu wax sant leen ma rek waye mom ci bopam wax na ni ngeen may sante ñu ne ko yàlla nuñ lay sante mu ne bu ngeen mu buggee sant da ngeen di wax alhamdulillahi rabbil alamin mboolem xaaju cant yi cant goo jël day delluwaat ci yàlla li la sa mbokkum jullit defal nga di ko gërëm gërëmaande ga mu ngay delluwaat ci yàlla ndax yàlla moo ko sant mu sant la ko mu defal la ko kon boo sante nit ki nit ki delluwaat sant yàlla mi ko jox bone Alhamdulillah rabbil alamin sant nga yalla ci xewal gim la def ngay dundu te munon la bolé ci way dey nga yewu suba say ciir nangu nga jog fuddu nga ne alhamdulillahi rabbil alamin nga sant yalla cant ga day wat ci yalla ngay dugg ci julli xam yaangi yaa sa borom te ku jàkkaarloog bur bu toll ni yalla war nga ko sant ndax mayna la nga muna yew bu muna japp muna jàpp mun a taxaw jàkkaarloog jox ko limu mom nga ne alhamdu bi nga kabbare ne allahu akbar nga tek ci basmala ba pare ne alhamdulillahi rabbil alamin cant googu day wat ci yalla kon sant gi ñuy santante suñu biir day delu ci yalla sant gi ñuy sant yalla ci limu ñu bind ak sant gi koy sant ci xewal yi ñuy defal day delluwaat ci moom waye sant gu mujju ga moy buñu ñu boy duggu ajana ba ñëpp dugg ajana foofu dinañ toogaat ne alhamdulillahi allazi hadaana li hadha wa ma kunna li nahtadi lawla an hadaana allah ñu ngi sant yalla mi nga xam mo ñu bayyi won ci aduna ñukoy jaamu diko jaamu diko jaamu ba mu jël suñu roh dekkalat ñu nak dal ñu ne aywa aljana ngi ni duggu la budu won ak mbaxam duñu duggu fi kon ñu ngi koy sant kon yàlla mu ngi ñuy jàng jàngal nuñ koy sante moo tax mu ne xuulu yaa ibaadi ida arabtum sukri wa sanaa'i alhamdulillahi yéen sama jaami bu ngeen ma buggee sant bugg ma am bugg am sama ngërmande na ngeen wax ñu ngi sant yàlla uskuruni ala ihsaani wa jamili ilaykum sant leen ma ci rafetal gi ma rafetal ci yéen munoon leen a def ay bàyyi ma munoon leen a def ay jamaadaat muy ay taabal ak i banc ki chaise yu kenn xamul garab yeeg yooyu waaye defuñu loolu yëpp mu def kon nañ ko sant ci loolu ak rafetal gi muy rafetal ci ñun ñu koy tooñ mu ñuy jéggal kon nañ ko sant moo tax mu ne fa ana allahu zul adama wal majd wa sudat al mutafarrid bil khalq wal ijad rabbul insi wal jinni wal malaika wa rabbu samawati wal aradin fassanaa wa sukru lillahi rabbil alamin duuna maa yaabudu min dunihi mu ne kon man maay borom teraanga ji mooy ba maay borom ndollant gi maay ki wéet ci bind gi ba may bind man yàlla kenn nekku fa kenn jàppalewu maa amal te ba may amalit kenn jàpp ci maay borom nit ñi di borom jinne yi waaye maay borom malaaka yi maay borom asamaani juróom-ñaar di borom suufi juróom-ñaar kon nag ak tagg ak cant ñeel na ma man yàlla mi borom bindee fi wulif keneen ku dul man nag ku ñuy jaamu te du yàlla xërëm bi ngay samp di ko jaamu yaa ko defar loo koy sante moo la war a sant kay yow mi ko fekk mu nekk ab bant nga jël ko yett ko ba mu mel ni yow defal ko ay bët defal koy loxo defal koy tànk taxawal ko kooku kay moo la war a sant yow yow mi ko defal loolu waaye léegi yow moom santatu la yow nga koy sant moo yàlla mi la bind tam melal na ni mu la war mel kooku nga war a sant moo tax mu ne kon cant gi man yàlla maa ko moom waaye du xërëm yi ngeen di jaamu boo ñëwee ci arrahman arrahim yàlla mooy borom yërmande moo yaatal yërmandeem ci àdduna ba kuy julle ku dul julli ku gëm ak ku weddi ku nangook ku bañ yépp xaj ci biir bàyyiwul kenn ci mala yi gis nga mala bu juree doom nim koy yërëmee boo jegee doom ji mu dal sa kaw ak loo ko moom moom booy jàpp doom ji rek pour fitnaal ko mu dal sa kaw yërmande googu yàlla def ci mala yi def ko ci nit ñi def ko ci ki gëm def ko ci ki weddi koku moy arrahman moo tax mu allazi wasiat rahmatuhu shay'in yeuma dem dafa daj lépp wa amma fadluhu jamiul anam xewalam gi matal ñep bàyyiwul ken bima anama ala ibadihi min al alxalq والرزق والهداية إلى سعادة الدارين وهو رب الجليل العظيم الرحمة الدائم الإحسان كوكو موي يالا مو ماتال خيولم تي منديفامي ci wërsëg ci gindi leen ci bisu ñaari bis yooyu nga xam ne ci la ñuy sàkku texe muy alaxira mooy borom bu tedd bi mooy borom yërmande gu sax gi mooy borom rafetal gi kook mooy arrahman waaye arrahim mooy ki nga xam ne buñ demee nag ba alaxira ah foofu nag ku gëmul woon yàlla perte nga buñ ba ca examen bu mujj ba nag résultat yi war a génn nag bu boobaa nag ku bindul woon lu baax jànguloo woon defoo woon lu baax bu résultat yi génn sa tur du nekk ci liste yi moo tax arrahim fee lañ koy defee fii la liggéey bi fii lañuy defee examen waaye nag résultat yi àllaaxira lay génn foofu nag bu génnee yàlla nee na sama jaam yi ma doon jaamu ñooy am résultat ñooy am note yu baax ñoo ñooy dugg ci arrahim lu ci topp mu ne maaliki yawmi diin yàlla mooy borom bisu fay ba fii bésu liggéeyukaay la kenn du fi fayeeku fan la ñuy fayee ko alaxira usine ba ñu la fa yóbboo ngay liggéey ñu bind la weer lañ lay fay duñ la fay te weer bi jotu deewul bu weer dee nag boo laajee ñu fay la xanaa nga bëgg a jël avance boo xam ne dañ koy dàq ci sa ñu jël ko ci sa solde mun nañ la ko nangu waaye nag fii ci àdduna moom jaamu yàlla gii yàlla sant ñu kañ la koy fay alaxira fii nag dina la defal ay teraanga ay xéewal waaye xéewal gu mag gi yépp nag keroog lay doon moo tax mu ne maaliki yawmi diin mooy borom su fay ba kenn du fa buur keroog ñii buur buur lu fii nekk fi ay njiit bu ñu demee fële duñu fa dara ndax bu ñëpp dajee nit ak jinne daje malaaka yi daje yàlla day taxaw ne li limanil mulkul yawma tey ana buur yi ku moom nguur gi ñëpp sëgg kenn du siggi président yi ministre yi député yi buur yi ñëpp waaf ci suuf kenn du siggi yalla tok jooni ak dan al al yawma lillahi wahidil qahhar tay man rek may bour may capaaculi tay man dong nga fi dogal kon malik yawmiddin moy borom bisu fayba wata ko fi bour bour lu xamale di nga wacc ci gi bis bo ci borom bi nga xam nak moy bour dina la att ci li nga don def kon ñi nga xam ne ñu ngi dagaan ci jamono ji ñu tollu baatu askan wi bëgg ñu fal leen ñu nekk ay njiit dañuy jàng fatiha te déglu borom bi subhaanahu wa taala li mu wax foofu ne moom mooy borom bi su fay ba huwa subhaanahu wa taala almaliku lil jaza wal xisaab almutasarrifu fi yowmi diin tasarruf almalik fi mulkihi mooy buur bi nga xam ne keroog mooy dogal nu ko neexe kenn mënu ci dara waaw mooy ko neexe kenn du ci mën dara ba nga loolu moom it tontuwaat na la sax na la yawma laa tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma idhin lillah bis boobu baay mënulu fa doom baay mënulu fa soxna soxna mënulu fa jëkkër kenn mënulu fa kenn daara yàlla rek moo moom bakkan te mooy fay te mooy àtte bu ko defee fatiha jeexagul mbokk yi waaye waxtu wi dab nañu kon dañ koy tënk foofu rek incha allah bu ñu dellusiwaatee rek àndaat ak yéen ba tey تيأجل فاتحة الكتاب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته